dama bëgg yéen ñi toog ci saal bi ak fa ngeen di ñibbi bu ngeen demee ngeen ne leen Sénégal des sillons pour servir mooy programme bi nga xam ne mooy programme bi baax ci réew ndax mooy régler problème mu yar bi te du am kaso yu bari ñu ci tànk yooyu lañ nekk te président Macky Sall xam na bu baax xam na ne ci loolu laa nekk léegi nag moom nekkatul candidat moom nekkatul candidat beneen candidat bi fi sës boo xam ne bu demee day gañe mooy man mi amul beneen kon nag préparé wu leen bu baax préparé wu leen may wax Macky président Macky Sall ne ko li mu liggéey rafet na gërëm nañ ko sant nañ ko man maay candidat bi nga xam ne maa mën a indi jàmm ci wàll yëpp am na ku koy wax léegi maa mën a am ngor ci wàll yëpp ndax ngor laa ma sa wan